les gens qui sont au pouvoir. ñooñu moytu pouvoir. parce que loolu tamit defe naa ñi nekk au pouvoir ñoo bëgg a commencer euh, teg ay jalons foo xam ne. d'accord ce n'est pa de leur euh, ce n'est pas de leur ressort. ah parce que c'est une plateforme qu'on qui est initiée par les gens waay jub jubal la plateforme jubbanti l ils ont sorti leur leur motif à part sama jubal jubbanti c'est le même groupe qui a qui a créé ça mais c'est pas encore une décision nationale ou une décision vraiment en tout cas c'est c'est c'est c'est le 28 allah waxtaan wi fa nar a tukkee mais jëwriñ Ndiaye waxtaan wi ñëw na waxtu wi ñu ko soowee de. waxtaanu justice. waaw. waaw ñëw parce que euh, comme ni ñu koy waxee saa su nekk dëkk ñetti pouvoir yi ñoom ñoo ko yor muy exécutif bi ak euh, judiciaire bi ak parlementaire bi te ñun ñëpp. ñii tamit ci ah presse bi. Ah, ah, waaw <laughs> waaw quatre pouvoir pouvoir. quatrième pouvoir. <laughs> pouvoir donc. Euh, façon euh, ñetti ñeenti fànn yooyu yëpp laaj na ay jubbanti. laaj na ay jubbanti parce que am na loo xamante ne kenn du ko làmbaat Sénégal. Mhm. te liñ ci liñ fi liñ fi gisoon démb mooy. maanaam pouvoir exécutif boo xamante ni moo doon violer propre justice bi waaw parce que euh, juge di décider na pouvoir exécutif ne du ko def <laughs> donc bu fekkee ne pouvoir exécutif mooy ñàkk respecter justice bi kon kan moo koy respecter hmm, day compliqué de booba hmm? donc c'est à rectifier tu léegi nag bon li ñuy wax naan euh, poisson pourri xaw ma commence par la tête xaw ma mhm. donc ñoom nañu defaraat seen toogaay xool ban rapport la ñu war a am ak judiciaire bi exécutif bi xool ban rapport la ñu am ak judiciaire bi nga xamante ni tey jii pour ñu mën a éviter yu fi xewoon di fi xewaat parce que bu fekkee ni juge bi bu àttee àtte boo xamante ni dëppawul ak ni ko exécutif bi bëggee ñu jëlee ko ci postam affecté ko wala du du du du am yokkute ci liggéeyam loolu je pense que hémorragie bu ñu war a dagg la quoi nga xamante ni juge bi day am pouvoir am da maanaam dafay àtte akulaay taalaaw nga xamante ni ku mën ci taxaw ci kanamam muy kilifa ak muy sénégalais am ndaa bi justice rek lay wax au nom de la justice yam ci quoi. Mhm. loolu la ñu soxla. tu vois maanaam yi fi amoon bañati fi amat. Mhm. loolu lañ soxla parce que lu ñuy wax réconcilier justice bi ak peuple bi. Mhm. parce que bu ñu demee Sénégal ba nga xamante ni juge bu àtte dëgg sax ñu lay tàccu. c'était grave quand même. te loolu lañ dund bi passé. dëgg bi devient rare ah, donc donc dañ doon miin ni euh, gars yi dañ doon dem ba ne boo bu état tooñee dañu doon dem ba gis ni kon justice du àtte dëgg parce que état moo tooñ. Mm-hmm. te justice bu fekkee ne amul amul pouvoir état bu tooñee mu ne ko yaa tooñ <laughs> su boobaa justice boobu amatul njëriñ. peuple bi du ko mën a respecter quoi. Mm-hmm. l'indépendance de la ce que yaa ngi dégg wax ji. c'est faussé au départ. Déjà, <laughs> on nomme les, si on nomme le, ministère de la Justice. Mm. les procureurs dépendent presque du ministère. waaw <laughs> te consultation yi ñu ko daan defee palais. maanaam ñu ñu war a ñu war a affecté ah, yooyu. waaw gën a grave grand. Hmm. Euh, routière. Hmm. na benn bureau boo xam ne dossier dossier dossier fan la koy décider. <laughs> mi ngi noonu. xam loolu daal à côté du centre culturel français. ah y a un bureau là hmm. ko tous les dossiers qui sont au palais passent là-bas de la présidence. yaa ngi dégg wax ji. yëgu ko. yëgu ma ko woon ah, loolu ah l'adresse exacte. Djibi <laughs> en tant que journaliste kon jëlal. Oh, Matar Matar dina ci demaat defaat ci yeneen gëstu. Matar jox naa la benn ngi parce que daal xam naa ne daal bale bi ah. exécutif bi dañ jàll. des na judiciaire bi. Hmm. après ñu jëm ci parlement ba. d'accord. ñu hmm. dem ci. parlement ba. parlement ba dem xool nuñ koy gere <laughs> mais en attendant ñu dem ci parlement bi Abdoulaye Mbow. Euh, donc donc yan mesure concrète la ñu war a mën a jël sànq yaa ngi koy cax de moo tax ma dellu bëgg nga delluwaat ci am profondeur pour pour au moins ñu assurer li ñuy wax indépendance en réel bu magistrat yi fii ci réew bu Sénégal. waaw mais jiitu na ci euh, article bi nga xam ne am na ay dëkk fii sax en Afrique yoo xam ne féet na leen ginnaaw. Mhm. mooy l' article relatif euh, à la France au chef de l'État article quatre-vingt boobu ñuy wax. waaw quatre-vingt bi. le morceau dont on parle. Mm-hmm. article quatre-vingt bi vraiment war na féete war na war nañ ko xoolaat war war nañ ko tëggaat dëgg la naam daañu teg ay garde-fou waaye jàpp naa ni li nga xam ne dañ ko yàgg jooytu mm-hmm. nga ñëw toog ne eh le président est entre de maigrir le procureur s'autosaisit mm-hmm. yóbbu la prison waxuma nag saagakat yi. non saagakat yi moom kenn du leen kenn du leen layal moom. wax ma ñi nga xam ne dañuy jël wax ju ñaaw. waaw fu mu gën a bone te ko si kaw doomu aadama. loolu moom baaxul. te kooku sax procureur kuñ ko def si réseaux sociaux yi wala à travers des canaux de de diffusion de l' information. warul sax xaar nit ki di porter plainte dafa war di autosaisir. autosaisir directement aussi simple que ça. même si c'est saaga moom baaxul. non xam nga même si c'est de la provocation. non je dis. yéen attendez on vient de sortir d'un combat d'un match de lutte kii <laughs> gagné ki gagné wul. non xam nga. non non euh, ma man waxee ma. moom peut-être waxeewul waxeewul ci sànq. sànq yi ma dégg tey c'est de la provocation sûre. non xam nga man fi may waxee ñi ñu bëgg mooy nga réagir ñu ne euh, ci l'acactualité. waaw nga nga jàpp leen quoi pendant ce temps-là on nous détourne des des réalités. des besoins non xam nga fële. ceeb bi war a wàññeeku dugub bi war a wàññeeku engrais bi ñu war a distribuer tey bu ñu ne la tous les médias sur les insultes et les et les trucs de quelqu'un ti vois ma ne moo tax ñoom tamit il devait avoir euh, foofu daañu fa daañu fa nañu dafa sell sax. daa daañu fa daañu fa tàbbi sax ku sell ay saaga ay saaga dina la laal. daa daañu fa ah, laal jëwriñ ah, ku sell. Ah, ay saaga kay sax doo. man waxuma sax foofu kooku moo tax may wax. mais dama ne xam nga tous les insulteurs. ku far ak nguur. ku farawul ak nguur. yaa ngi dégg tous. Hmm. ils sont à mettre dans le même sac. Hmm. tous laa wax ils sont à mettre dans le même sac hmm. te waruñu tardel euh, citoyen sénégalais bi. bi nga xam le meilleur traitement de l'insulte nag c'est c'est l'indifférence euh, l'indifférence et le mépris ngi xaar l'indifférence et mépris euh, c'est le meilleur traitement mais boo jëlee tout le tout la machine judiciaire nga ne tu mets ça derrière quelqu'un qui a insulté mais nag euh, docteur am na loo xamante ni phénomène boo am Sénégal la muy ko ni wax ju ñaaw hmm. day fay Sénégal léegi day fay day fay day fayal boppam non wax ju ñaaw ah. gars yi dañuy fay pour ku leen waxal wax ju ñaaw. day fay quoi moo tax ma ne la wax. mais mais man man nekk man man ñëwagu ma woon foofu sax. man man ñëwagu ma woon foofu sax mais man man man je parlais des magistrats. Mhm. donc parce que magistrats yi li ñu dund ci bële passé tamit bii nii xëy na war nañ koo mën a joyanti ba yooyu yëpp duñ fi am moo tax man je parle de d'indépendance réelle. dama magistrature bi surtout moo tax xam nga dama magistrat non dans nos pays xëy na dina teel nga wax l'indépendance réelle. dans nos pays là. dina teel nga ne l'indépendance réelle. Mhm. parce que quand ñu bëgg ñu bañ. Euh, am ñu niveau de démocratie et de développement comme yeneen dëkk yi nga xam ne dëgg-dëgg. Mhm. juge président day jël décision juge bind na ko du jàll. te kenn du si mën dara. yegguñu mhm. si niveau boobu. mais quand yegg nañ si benn niveau boo xam ne. magistrat bi dara du ko tënk si liggéeyam donte loi moo wax ni moom si si loi rek la mën a sukkandiku te loi ak mu ko tënk. tout à fait waaye ñun xam nañu mbir bi ni muy doxee. Mhm. léegi nag loolu soppi ko mooy soppi yenn textes yi defaraat ko bindaat ko bañ a bindee bindin goo xam ne toujours législateur bi day bàyyi prox ndoll pour des interprétations at des fins donc loolu def naa ni war nañ see mën a mën see jóg. te sénégalais boo taxawal laaj ko dina la jox benn ponk ci justice boo xam ne bu ñu ko defaree mu gën a baax parce que bu ko dundul dund na ko ci quatre dernières années yi bu dee moom touché wu ko directement touché na ay nit yu mu xam walla touché na ay citoyens sénégalais yoo xam ne euh, fépp la ñu mën a nekk ci Sénégal donc foofu noonu war nañ ko war nañ see war nañ see. góorgóorlu def ay jéego. Mm-hmm. ba nga xam ne effectivement ñun daañu xam ni suñuy texte texte texte yi baax na baax goo xam ne am na yu bari yoo xam ne amaana euh, nit ki dina dina dem si yoon te tiitaange buñ la ne procureur wóor na la tey si guddi jibi doo nelaw. doo nelaw buñ la ne procureur wóor na la wóolu na la tey si guddi doo nelaw donc je pense que yooyu yëpp daal. lañu war a mën a joyanti demoon nañ sax ba nga xamante ni kenn dootul convoqué dañuy enlever. Hmm. <laughs> waaw dañ lay fekk sa kër da yóbbu la. <laughs> docteur mi est ko woon noonu. waaw yow moom dañ laa topp ba ca. waaw <laughs> ah, ah. voilà donc daal. Euh,